tant que jullit en tant qu'être humain yalla may ñu wër ak tal ba ñu féké waat encore une fois élection yi euh, Sénégal mu ngi wote euh, pour la quatorzième fois ci élection député xam ngeen élection député élection bu am solo la niroowul ak élection mairie mairie baxna lool ndax fi lañuy tonto euh, demande li population bi bëgg wante élection euh, euh, assemblée nationale dafa nek élection bo xamante bi bo ci jëlee benn patch rek ci li tax élection député am solo moo di par exemple yalla nañ ci yalla mussal guerre ken mënu ko déclarer ludul assemblée nationale dafa joxé waw ludul dul dafa wax né d'accord na donc lolu moo di euh, li nga xamné mo soxal ñun suñu suñu suñu stabilité manam suñu jamm di jamm ci la lepp nek donc jàmm réew mi mu ngi d'abord type après président de la république assemblée nationale ak beneen pouvoir bi comme ni ko waxee pouvoir judiciaire mais xam ngeen ne élection député donc buñ koy def kenn ku ne da ngaa war a fàtte sa bopp xalaat réew mi xalaat suñuy doomu tey ak suñuy doomu ëllëg loolu mooy différence am ak élection locale élection euh, mairie yi nekkoon naa maire fii Parcelles Assainies Euh, sant yàlla def fi liñ fi mënoon a def yëpp mais loolu ku ñëw rek da ngay topp def li nga xam ne moom nga fekkee wante bu fekkee élection présidentielle wala élection législative bu député yi comme yii tey ah réew mi dafa laaj comme àdduna tey dafa jaxasoo boo xoolee tey li wër Sénégal yëpp daanaka jàmm amu fa ah boolu boo dem ci élection yu mel noonu da ngay sooraale jàmmu Sénégal nga ne Sénégal fan le gëna a am yaakar ne bu amé majorité fofé lay amé majorité buy indi xulo ak xex lolu kenn majorité bi am solo tay ci Sénégal moy majorité bi tax réew mi gëna am jàmm réew mi nek ci nit ñi joxante ay loxo nek ben ndax ñun ñëpp bok def gis li nga xamné ñu ko fi def diko pour mu kanam mu kanam ah da ngay jappelé ku fi yalla tek jox ko lengue yi muy président Macky Sall président de la république comme ngour yalla koy joxe jox na ko ko mu ngi liggéey a ben diiné muy jappelé diiné yépp di jappelé askan bi ci li nga xamné suñu kom kom fofu la tollu ah koku dañ ko wara jappelé lolo tax ma ngi waxat comme niñ ko waxé tay mom élection campagne amatul woté mo am téréwul nag comme woté rek am ah ku ne mën ngaa wax nag sa xalaat tey ndax loolu du élection du campagne électorale li may ñaan daal Sénégal di ko ñaan ki nekk ci réew mi ak ku nekk bitim réew wala ku ci mën dara tàllal suñu loxo suñu borom tabaraka taala moom mi moom lépp am lépp sañ lépp yàlla joxaat président Macky Sall nguur fii ci élection député yi ndax lii du lu ñuy wut niroowut ak élection mairie nous lu ñu di dañ ko fois tay fi ci en tout cas euh, depuis président Macky Sall président de la République nous wa Parcelles mom lañuy ci député merci beaucoup.